mënatul am. ndax tension yi monté na. allo allo waaw. ñoom ñoo ko indi waaw ñoom ñoo ko indi loolu waaye dugal dugal leen fii ngeen di foto dem leen day foto ko dem leen foto ko dugal leen fii kenn du fi foto kenn du fi foto dem leen foto voilà gis nga bekkaay. waaye euh, li nga xam ne. lu ñaaw lu ñaaw mhm. lu làmb mérité wul. Mhm. lu ñaaw loo xam ne bu doon ni loolu la ñoom ñaar du ñu bu doon ni lii moo fi am bu doon ni ñi fi woon lii lañ fi ba. kon ñoom ñaar duñu bari mhm. duñ fi fekk jàmm. fi fekk euh, dara loo xamante ne ni nit dina ci mën a tedd. muy ñoom ñaar ñëpp di nii di Balla Gaye bu dee ni gis nañu ni am na lu nu war a mën a defaraat ci seen biir écrits yi nañ ko defar. te yaakaar nañ war nañ ko mën a am. ku ci nekk parce que dara gënul woon a normal Yékini ñëw toog ci chaise am Balla Gaye ñëw toog ci chaise am ñu démarré conférence parce que tout était civilisé mais Modou Lo Modou Lo Balla Gaye tension boobu tamit amoon na te pourtant face à face yi amoon na amoon na amoon nay face à face mhm. ah, bu mbuur bi moo ci échec moo ci échec mais sinon daje nañu toog nañu waxtaan nañu wax nañu jox nañu promotion lamb bi mais xam nga ne lamb boo xamante ni dans huit jours la wala neuf jours. mais dégg naa seen dernier face d'ailleurs euh, kii mi ngi koy tiitre à la une xanaa nag. Euh, euh, Yékini Balla Gaye sauveront-ils la face. waaw mais dara leeragul. dara wóoragu ci le 18. d' ailleurs sax le président Alioune Sarr war na def conférence de presse lundi. Mhm. à 17h30. Mhm. le président Alioune Sarr a rencontré le ministre El Hadj mhm. waxtaan nañu ci waxu làmb xam nga Alioune vraiment il est à encourager absolument ah ndaxte CNG li nu liggéey ci làmb ji rëy na tey lenn rek laa doon demandé man CNG ñu jël ñu jël en mais les signatures de contrat waaw parce que gis nga mbër mu mbër mu mu leer ni boo ñëwee signature de contrat boo fa defee nii ñu dagg la coow du fa jib bu leen wóoroon ni Alioune Sarr day toog et puis les na nuy associé les signatures de contrat ñu associer ci CNG nan koy def parce que CNG au moins am na lu ko ragale. mais ñoom lool sax da leen di arrangé. mais leen di arrangé. chaque signature de contrat na un membre du CNG ñëw toog bu leen wóoroon ni ñay dagg ca biir terrain ba ca géew ba ñu ngi ci biir signature bi lii du fi am bu leen wóoroon ni bu ñu ñëwee ñoom ñaari. wàll yëpp jaaña nga taxaw bu ñëppee ak cerno waaw loo di xool li ngay def ndax jaadu naam jaaduwul. ndax ëpp na cinq accompagnants ëpp cinq ñu ne Balla Gaye cinq ngay dugal ci signature bi Yékini cinq ngay dugal. Hmm. bu nu ñëwee cinq yooyu kenn lay topp ba ci chaise bi. Hmm. ñi si des fee la ñuy toog bu loolu amoon coow du jib Papa Alé mais pour lii am parce que wër na leen di dara du leen ci fekk lu leen ci fekk. dara amul benn règlement bu leen ci mën a fekkal dara. Hmm. est que loolu bokk na ci signature contrat est ce signé nañu contrat bu dee coow am na fa et puis coow li kan ngay jël responsabilité bi jox ko ko mais ñoom ñëpp la. ku amee dafa am ku tooñar bi. waaw waaw. xeex xeex la xeexu mbedd. waaw amul règlement. amul règlement xeexu mbedd la amul règlement. <laughs> lii yàgg na ci làmb. yaam mooma saaga ak mooma loolu làmb même biir géew bi na ngeen di saagante buñ ko wax buñ ko nëbb. <laughs> dëgg la. daa yow fekkee nga yooyu mais ñun gis na lu ne. Uh-huh. mais ñoom noonu nga xamante noonu la nu def ci biir signature bi dañ koy def ci biir géew bi mais danay xam ni booba jaaña ngi taxaw croiser les bras di la xool cernoo ngi taxaw arbitre yaa ngi taxaw ku nekk di superviser di xool mais noonu nag la lan war a def signature contrat bu leen neexee ñu signé ko ci diggu mbedd mi bu leen wóor ni ku juum ñu daggal la minute un million. Uh-huh. cent et quelque lan fayee quoi. bu leen wóorul ay eh, booy tey de boo demee boo fa defee nangam dina la dagg minute bu ne un million wala minute bu ne cinq cent mille coow du fa jib. duñ tardeti sax. sunu lamb de Mansour Mbaye nee na pour woote na jàmm. waaw waaw waaw d'ailleurs moom woote na jàmm. sunu làmb ñëw tamit ci chute Balla Gaye de Radisson tarxis bu mu def. waaw tarxis gars yi ne bon ou mauvais augure. Euh, ay sëriñu Balla Gaye de tamit ne yëkkip yëkki ni c'est d'Europe tout le temps. Ah. neexut a gis. waaw loolu la ñuy wax. Euh, les deux managers li nga doon wax léegi Yékini Balla Gaye 2. zappé waay euh, ni Balla kenn woowu leen seen ñaari managers la ñu euh, la la le CNG. convoqué le CNG convoqué. parce que nag ñu ngi bëgg a yàq làmb ji aussi ñu ngi yàq làmb ji. waaw Walf Grand Place tamit dafa intéressé wu ci làmb le cas de Balla sur la table si jàngat Balla Gaye son poids son comportement <laughs> provocateur. waaw xam nga salañ salañu <laughs> Balla boobu. mais yàgg na nii ah. waaw yàgg na nii Balla Gaye. waaw xam nga des fois sax am na ñu ne dafa réew. Hmm. réewul de. day jox làmb ji <laughs> melul noonu nii muy wane nii. Hmm. ak ni mu mel ci tous bi du benn de. waaw euh, entraînement des deux lutteurs Yékini entre contact et travail d'endurance. waaw euh, Balla wax ci ni son ventre ni son poids ne dérange Balla Gaye mooy poids bi. waaw eh, Balla Gaye 2 daal sonalu ko. non il est souple. il est très souple ak yenn beneen stade. stade euh, le prodige d'Everton en vue le Sénégal va Magaye Gueye tamit. Hmm. boole ci football bi tuuti. au passage euh, ñuy félicité Mor Seck. Mor Seck damier parce que dafa demoon euh, États-Unis hmm. dafa quatre cinq cinq matchs. waaw am fa quatre victoires ak benn nul. ah kooku jàmbaar la damier la damier au passage ñu koy. félicité kooku jàmbaar la waaw ñu koy félicité bu baax a baax. bon Fes Dakar. tamit suñu gaañ. waaw <laughs> xam nga ñoom yi mais mais nag ko bëgg de. ah mais bien sûr bu baax Adja Ndoye aux États-Unis Adja Diallo à Accra les deux mannequins invités pour des deals de plusieurs millions le lutteur. waaw Bacheta accusé d'avoir enceinte une fii Omar ay Bacheta Omar Sow de bientôt devant les gendarmes.